état état bi il faut que ñu toog waxtaan ñu xool yenn yenn anam la ñu defee parce que élection aussi dafa compliqué yombul organiser te élection aussi yoo xam ne kenn du ko contesté moo gën a jafe encore kon nag bu ñu waxtaanee ba pare bu neexee yàlla daañu fexe ba élection yi am ci biir mois de mars ba pare le 2 avril la passation de buts entre le président ancien le nouveau président. man candidat dama taxaw pour defaraat Sénégal dama taxaw pour liggéey a d'accord parce que loolu mooy ni mu demee nii di conseil constitutionnel wax li Sénégalais yi xaar mooy ñu am date boo xam ne ni kenn du ko contesté ñu def ay élections yoo xam ne ni yu jaar yoon la. waxtaan bi may d' mooy waxtaan bi jëm ci jongante yi parce que loolu moo ñu booleeg moom tey euh, élection yi joxe nañ date bu ñu ko waree doxal euh, toxal amul problème mais loolu moo jara waxtaan ñu toxal élection yi pour avant le 2 avril mu jeex loolu yëpp mën a nekk ci cadre waxtaan te loolu wax na ko conseil constitutionnel sant nañu ko donc nee na nañu waxtaan pour que ñu am dat yi gën d' accord ci loolu booleeg moom tey. Euh, élection yi joxe nañ date bu ñu ko waree doxal euh, toxal amul problème mais loolu moo jar a waxtaan ñu toxal élection yi pour avant le 2 avril mu jeex loolu yëpp mun a nekk ci cadre waxtaan te loolu wax na ko conseil constitutionnel sant nañu ko donc nee na nañu waxtaan pour que ñu am dat yi gën d'accord ci loolu mun nañu waxtaan mais ci leneen gëmuma ni